muy Ndakaaru muy Thiès muy Ziguinchor muy Diourbel a ah, loolu moom ay défaite la yoo xam ne waaw ak Guédiawaye euh, loolu yëpp lu am solo la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 maire bi même bu newoon ci taxawu Sénégal la gañoon commune bi après dafa ñëw si yéen mm-hmm. Pape Seck bu Medina euh, bu HLM dafa ñëwoon ci yéen mm-hmm. Ousmane Ndoye euh, bu Fass Colobane Gueule Tapée dafa ñëwoon ci yéen mm-hmm. mais bi ñu ñëwee si yéen teewul euh, yeewi dañu récupéré waat commune yooyu waaw xam nga ñëw nañu si ñun waaye amuñu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 que coalition Benno Bokk Yaakaar tegoon daf ne d'accord mu ci parce que ay at a ngi may liggéey ci commune bi. waaw.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 mais est-ce que est-ce bi ñuy def investiture bi Idi euh, Idi participer na si. ah non non tamit xam nga politique nag la ñu nekk mënoo ne ma Idrissa Seck ak Macky Sall mënuñoo ñàkk di diisoo <laughs> parce que diisoo nañu parce que lañ tànn waa réew mi joxaat leen mairie yi waa APR ya nekk ci d'accord uñ ci woon. kon da nga yi. Uh-huh. mel na ne jox na leen ñoom dëgg. da nga jàpp ne Idi moo ko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 am ci tëli yi am ci pakaseen bi am ci pendeel bi yu bëri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 assemblée nationale HCCT hmm. au conseil économique social conseil économique social nga ñëwaat jox ko Idrissa Seck ñun affaire lan nañ yor ci coalition bi <laughs> premier ministre amatul hmm.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 ak wax li ñu liggéey jàpp naa ni bëriwut yi bëriwut ñoo xam ne mën nañ ne mën nga ci lim tey juróomi responsable au niveau national te boolewoo ci Bara Gaye mhm. loolu nag taggoowuma ko sama bopp waaye sama engagement la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 jërëjëf jàmm ak